muy Pape Diop mii ñuy wax ci Yacine moo ñu fi indi tey affaire bi mën naa bañ a yàgg ku ne dellu si say yitte minute yu néew lay doon amul folklore amul ay débat li ñu fi indi la def dellu ngeen baal nag si naaje gi parce que li tax ma naaje président dafa joxe woon ndigal semaine bële man ni man day bëgg na maa jëfe ndigalu président waaye dafa xat ci man ma programme woon ko démb ak tey ma nekk si nag doon ko appliqué si ndigal li mu joxe loolu moo taxa naaje ni ma naajee nii moom mi jiite réew mi nag ñu nga ñaanal moom ay bëtam leer xolam bi itam yaatu leer ba fi mu nu bëgg a jëmee mu yóbbuñu ko yàlla ñu dig waaye moom it yàlla ñu ko dig yàlla ñu yàlla defal jàmm waaye moom nag yàlla na ko yàlla dimbali mu jàmmoo ak ñun jàmm yàlla moo koy maye mais jàmmoo ñii noo koy sàkkal suñu bopp ma wax nag ni ma day lépp lu mu santaane te muy lu jariñ ñi man Alassane maa ciy jiitu waaye lépp lu mu santaane dama gis ni njariñal boppam képp moo ci nekk man Alassane ñi ngay contre maa ciy jiitu man loolu ma yàlla bind man yoruma dara lu ñu ma jox lu dul lu ma yàlla jox kon war na maa gëm yàlla ba duutuma naa féex naan yow laa gëm te fekk gëwuma kon ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant bi si des nag mooy suñu mbokk yi nga xam ne bokk ñoom ñun gis-gis nañu fexe di leen jigéen di waxtaan ak ñoom ba ñu bokk ak ñun gis-gis noonu la ñuy dimbalee nii ñoom ñii transport dong la ñu yaakaar mais ñun ñii moom dong la yaakaar. waaye nag ay nit mën nañoo nekk te duñu bokk nañu gisee mais bu ñu soree kenn gisul sa morom kenn laalul sa morom doo ma mën a doo ma mën a convaincre ba ma jóge si li ma waaye may du ma la ko mën a def kon nañuy jigéen di laalante di jéggalante kenn ku nekk di orienté moromam ñii bu leen gedd bu leen leen bàyyi na ngeen di fexe waxtaan ak ñoom li ngeen xam te xamuñu ko ngeen xamal leen ko na la ñuy dimbalee nii. te transport moo toll foo xam ne fi laaj na nun ñëpp nu bind ko nekk benn ku si doon tooñ sa morom nga jégal ko bàyyi ko bàyyi bàyyi ko bu leen gën a dara bàyyi bàyyi leen ko bàyyi leen ko bàyyi leen ko waaye camarade bàyyi leen ko li si des mooy ñu fexe góorgóorlu transport bi ñu jéem koo defar li tey bi moom yëpp kii lañ ko bàyyi li ñu jéem a defar transport bi kenn ku nekk dégg na barke démb bi ministre bi wootee fii si jëm ñaari man demuma woon man man demuma woon man ndaje moo ma woowul rek soxlawu ma faa man ndaje moo ma soxlawul soxlawu ma faa ñëw kenn woowu ma demuma mais xamoon naa ne dara du ko sotti loolu moom yàlla xamal na ma waaye ñoom ñi demoon bu ñu waxee li am xam nañ ni foofu dara sottiwu ma te it ku demoon sa ndaje ma te transport dong nga yaakaar war ngaa tiit bu demoon sa ndaje jëm ñaa jëbale déglu ministre bi li mu wax dama ni ku yëngatu si transport war ngaa tiit xam nga lan moo ñu si génn ñu ànd nekk benn lu dul loolu yàq nañu transport te day gën a yàqu réew mi fi nekkoon nag ñi ko yoroon bu jëkk ci la transport bi commencé yàqu ñoom ñu am si ñoom yaakaar senegal gépp am si ñoom yaakaar ni ñu amee si ñoom yaakaar waaye dafa xaw a lii ma gis muy xeeñ ci transport ne wax bokk te amaguñ ci tànk yu koy defar xam naa nag mën ngaa mën ngaa ragal doo ko wax waaye boo melee ni Alassane Ndoye moom da nga wax moom ñii ma gis amaguñ ci tànk defar transport su fekkee aw ñu si nag ñun ñii nga xam ne si la ñu dund ñun ñoo war a aw ci tànk defar transport am leen fulla am fayda ay nit leen kenn waaye soo jàppee ni ñëpp gën ñëpp gën ñu ngi nii ay ñëpp ay nit ñu ñoom man bu ma xamee ni ab chauffeur laa man damaa jàpp ni man war na maa yor réew mi ab chauffeur ñu ni dem na ba yor réew mi nit bu baax saa yoo gisee nit yor bu baax dañ ko jéem roy waaye gis nga boo nee du ma doon lii doo ko doon kon lii fu ñu mën a jubloo dinañ ànd nekk ben dañ leen di topp di leen woteel ba pare ñu yilif ñu dini duma te loolu ñu yor moom la ñu yor ñun kenn ëpp ñu bu ñu àndoon amul benn parti bu ñu mën a dékku mais ànd ñu man nag maa ngi dund ci loolu Pape tey jii nañ fi ñëw rek pour installer la delluwaat liggéey bi ku nekk xam na ni Alassane Ndoye amul fenn fu muy dem foo xam ni day dem fi mu toll nii yaakaar ñu fay ko amul amul fenn fu may dem man ba yaakaar ni su ma ñibbi dinaa fa jëlee juróomi dërëm amul kon xam ngeen ni man saa yu ma jógee pour dimbali leen moo su doon ndomi tànk ma ni man war doyal naa ko ndax mu dul président de la république man dégg naa parce que man maa gën a ministre man loolu laa wax amul benn ministre boo xam ni dinaa dem si sa bureau di kot kot yi déedéet yow dañu laa nommé te man maa élire boo xamee ne ni nag président bu bëggee def dara daf lay tàgguñu ndax mën naa koo def ba nga ni mën nga koo def mu door koy def waroo fekk sa bopp amul benn président boo xam ne da ngay wote budget bi war liggéey Sénégal te loolu doon laaj assemblée nationale te man depuis 2012 ba léegi maa ngi kon maa ngi leen di di leen gërëm Pape dafa am boo defoon bu jiitu sa assemblée générale bilan ak renouvellement bureau boobu fekkoon ma ko woon waaye si période bi gis naa ñu ni dañoo waxoon question bi nga ni ku bëgg gaaru ceer moom nga war joxe. ma gis ñu ni un million la un million bi keroog bi ñu dajee le 10 ngay def assemblée générale bilan dégg naa nga ni bi assemblée bi ne le la yow da nga ni nañu ko wàññi def ko 500000 mais assemblée générale bi ñoo bañ ni un million la. un million boobu moom la ñu maintenir ba keroog bi ngay def assemblée générale le 10 boobu it la fa ñëpp xam nañ ko. parce que police ngi taxaw waa nu mu tëddee UG bi mu ngi taxaw mais candidat yi nga xamante ni bii tey jëm ñoo waxoon ni li baax na waaye mën nañu lu ko gën a baax ñu ngi taxaw waaw keneen bi nga defee sa bilan ba pare bàyyi laat mii moom moo jëkk wax ni sa bilan baax ma ah, ko wax waaw nit boo ko dénkee. mandat ba jeex mu def bilan nga ni bilan ba baax na waaw léegi loo bëgg di waaye dafa wax ni chef bi nga toog moom la soxla am na si droit maa ni nag kon ñaar mooy mën a am lu waxtaan def bureau consensus mën nañoo waxtaan bureau def bureau consensus ñu dem élection ñu ni ñoom waxtaanuñu kon lan moo koy sës élection élection nag dafa ay modalité yooyu jaar ba àgg loolu moo tax keroog ñu ni le 10 boobu le 10 mai ak décembre le 10 décembre ba le 17 décembre mooy délai dépôt candidature bi ñu wax ni képp koo xam ne yaa ngi ñëw di déposer sa candidature na nga indi jumtuwaay yi wane ni si garage bi nga dox waaye nga indiwaale sa 1 million caution bi nga xam ne si assemblée générale bi jiitu assemblée générale bilan bi lañ ko waxee woon. kenn contesté wul ma yebal Assane yi mu ñew toog ba keroog date bi jeex ba heure bi jeex Pape Diop kep moo fi déposé caution ak candidature kon bu doon te lu mu doon administration élection locale élection présidentielle législative bu mu mën a doon su délai bi jeexé déposé le candidature dañ lay forkoloo moo tax ñu ni kon moom amatuñu ku muy woteel parce que mel na du bëre si biir ak làngaam olof di wax ni benn lam du yëngatu ñu ni benn loxo du tëccu waaye dina fettesu lañ wax ñu wax ni baax comme nag yàlla dogal na amuloo mbër moo bëreel man bind autorité yi wax leen bésëb tey jii ma bëgg def lan moo tax ma bëgg koo def moo tax bu dinañ ko def du te bu soobee yàlla yonent bi bu ñu ko defee bu waaye mi si def nag sos liñ def sos wu rëy xam ni ku lay ñaanal xam nga lu la war a ñaanal kattan bu dëgër a bu bu wow koŋ ak xàndar bu mag ak xol bu yàgg moo lay tax nga mën a sos parce que sa bésu tey bii ni la seen mbokk taxawoo yow it noonu nga leen war a taxawoo taxaw dañu taxawu jëmër yi sonn nañu te buñ leen di taxawu ñu teg si siraatal mustaqim nag loolu laa lay dénk ñun nag pare nañu barke démb maa ngi boo morise pour ñu am nañu ko fekk waxtaan nag Pape Cheikh Ndaw mu ñu dénk gaar ba nga xam ni moom moo ñu war a encadré moom moo war a superviser gaar bi ba yàlla dogal ñun ñuy mën a xëy man di gon waaye xam naa ni tëre na si parce que man waxtaan naa moom am na responsabilité yoo xam nee na fii laa mën a yem man ni naa ko foofu nga mën a yem foofu laay commencé te nekk xam ne boo marité jamono ba ma fa nekkee nekk député di fanaan ci table yi ak léegi wutal ba ma si génnee sama loxo la dellu gannaaw parce que la ma si attan ñu bari attan nañu kon ñu ngi lay gërëm bu baax di di gërëm kilifa yi fi teew yëpp di ñoom it yokk nañ ñu yaakaar wax dëgg yàlla yokk nañ ñu yaakaar bu baax a baax a baax maanaam man su ma war na maa ñëwañ te yàlla dogal na nag aw fit moom a gëm yàlla ak wóolu ko kooku moom yàlla def na ko si man man yàlla rek la gëm moom laa wóolu kon Pape tey jii bisu tey Alassane Ndoye bi nga xam ni moom moom nga wax ni si syndicat nga affilié te muy ndax bureau bi yaa jiite te tey jii moom nga bind fii ni affilié à la CNTS kon CNTS am na droit taxaw fii tey installé la yàlla nañu fekk mandat bu jeex mandat bi bi jiitoon ci barke yoon te te lépp ànd ak wér kon Pape ñu ngi lay installé tey ba ci tey installation bi am na ci ba ci tey di gërëm bu baax di leen sant. wan la bureau bii ci yéen journaliste yi pour ne avenir la synthèse yàgg nañu koo gis ci bureau bii jamono yi kon ñaa ba ne kon fii synthèse ko moom dama ne yéen sa bopp We're enough. Monsieur le Président. yal na yàlla dafa jàmm.